c'est la référence. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi safoo di ànd ak Alfayda FM kaddu gi di bàyyi ko ci meuble Cheikh Imam Assane Cissé eh, fii ci dëkk bu sell bii di Medina Baye ci boppu xibaar yi eh, mairie bu Kaolack nag jël na jéego ci jaaykat nga ñoo fay teewoon fii eh, ci diwaan bu Medina Baye nga xam ne nag gàmm ba léegi ñu ngi fi seen toogaay fii nag bu ñu ko xaymaa sax mun naa toll ci weer tax nag ba mairie bi jël nañ ca jéego ni ngi démb daal nañu leen daal di yëkkati ñoom jaaykat yooyu leen nag ku nekk addu nanga koo dundee waaye it tamit nag jéego googule nga xam ne mairie bi jël na ko ci njiitalu Baba Diag mi nga xam ne moo yor recette mairie bi daañu ca dikk ak soxna Ngoone Ndiaye nga xamante ne bi moom la caabi faytee gannaaw mën a yaxan tax nag ba amnesty bu Sénégal nag amal nañu tàggat ci garde pénitentiaire yi nga xamante ne bi ñoo leen faral di leen saytu fii nii ci diwaan bu kaw Kaolack ngir nag ñu nañ nañuy jàppale ñi nga xam ne caabi faytee na leen gannaaw ba lépp loo xamante ne soxla nañ ko ñu mën ci jotee waaye itam nag lu raw lu waral lu jëm nag ci wàllu métier yi nga xamante ne bi war nañ leen ko ko mën a jàngal itam ba mu jëriñ leen daañu ca dikk ak Cheikh Tidiane lu jëm nag ci naxaate gi nga xamante ne bii mu ngi wéy di am nag ci biir réew mi ñu wéy di ko gis nag muy nax nit ba jël alalam jëfandikoo nag jumtukaayu xarale bii nga xam ne moo di téléphone ci nag sàcc alalu jàmbur mu doon lu ñuy faral di yóbbu nag ci kanamu yoon anam ba ko yoon di àtte ak saytu ga ñu cay def daañu ca dikk ak Ndeye Fatou Cissé buñ ca noppee daañu ca a ruusee ci ay xibaar ngeen taaxe lu tuuti ma dugg ak yéen ci yaatal wekk faram fàcce bi gannaaw bàkk bi lay doon. xibaar yi ak Mariama Ba. bàkk ba jib naa ba noppi Alfayda FM kaddu gi di bàyyi ko ci dëkk sell bi di Medina bàyyi juróom-ñeent fukk yu toftal la benn ngeen koy teewloo ci diwaan bu Kaolack nangaan Sénégal ak li ko wër ah, tey nag di aljuma fukki fan ak juróom-ñett ci weerum octobre atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent njàppal wala ji libaas mbay la ñuy seen ci machine bi nama ma ko junjee woon ca bopp ba noonu laay duggee ci yàttal wi ak faram fàcce bi ni ngi démb nag la ñu jël ay jéego ci Medina bàyyi nag ci jaaykat yi nga xamante ni bii gàmm ba léegi nag ñu ngi fi nekk nag ci kaw yoon yoon bi ñi nga xamante ne ñoo di mairie bi nag ñoo ko daal di jël eh, ci njiitalu Baba Diack mi nga xamante ne moom moo yor recette mairie bi ñu daal di leen di yëkkati ca bërëb yooyu lee soxna Ngoné Ndiaye lañ cay àndal. démb ci suba gii la ñu xëy nag takkaayu ba dëgër wàcc ci terrain bi ngir afal xàll ba jóge ko ci aaj bi jàpp Medina Baye. abri moom moo la ñu wax mbaar na nga ko takk ak ay morceau def ci ay saaku loolu bu ñu la waxee dindi ko léegi sax war nga mën a jóg léegi dindi ko donc démb si ngoon après 19 heures si lañ mais huit heures incha allah bugguñu fekk kenn mu teg ci bagage am ndax bu ñu ñëwee ku fi dindiwul danañ dajji bagage yi dindi ko pour que fii libre. ñoom équipe municipale bu Kaolack boobee nag gannaaw ba ñu dawalee yërmande ci gàmmu gi ci lu mënutoon a ñàkk mayoon jaaykat yi nag ngir kenn ku ca nekk ca ñoom am loo mën a foraatu yóbbu kër ga gannaaw ba ñu leen mayee nag weer ak ay fan ñu doon jaay ni ki démb la ñu leen doon yëkkati. xam nga bi gàmm gi ñëwee dañoo jëloon ay disposition que ne bu kenn def ay mbaar teg ko di encombrer voie bi parce que pèlerins yi ñëw dañuy soxla espace bu ñu dox ak espace yoo xam ne dinañ ci mën a nekk à l'aise ngir mën a def seen gàmm juri si jàmm mais nit ñi boo seetee loolu cosaanu gàmm la ñii dañuy ñëw di ut si di jaay si pour ut ñenn ñi di di jëndaale yooyu daf siy bokk a compris que ne y' a pas de problème mais bu gàmmu jeexee ba def un mois jël sa tente def ko ci voie publique bi occupé ko ci buntu kër jàmbur yi jël mbedd bi jël cité bi jël ko def ko di n'importe quoi te boo leen lépp lu aju ci wàllum équipement marchand ak recette ci mairie bu Kaolack bi mu ne dogal boobee kilifa yi jël nag ngir taaxalaat dëkk bi ubbi ubbiwaat yoon yi lu jàmp la maanaam lu mënatul a xaar la gannaaw sax ba ñu gisee ne am na ñoo xamee ne ñu nga doon bëgg a dëkk. dem nañ ba sax ay dortoir la parce que li ñu constaté léegi bi ñu ñëwee suba si mooy dañoo fekk ñoom ñëpp kenn ku ci nekk sa place ci biir ngay fanaan def ko mu nekk sa néeg nga fay fanaan en même temps alors ça c'est vraiment désolant alors le maire a saisi le préfet euh, demandé ko à ce mu jël disposition yi mu si a jël pour que ñu mën a xool nuñ koy dindee jox na instruction police Ndorong ñu accompagner ñu ñu ñëw nañu ko waxee woon la ñu ko daal di defee niki démb nag taw bi yàqalu leen seen ak liggéey ñoom équipe municipale bu Kaolack boobee ak way takku der yi ca la ñu wàccoon rek ngir jàmmaarloog yenn jaaykat yi nga xamee ne dañoo tëw a jóg mu nekk nag dogal boo xamee ne ñu ne maslaha wuñu ci ñay roñ seen ay bagage dinañu leen taaxirlu waaye nag képp ku ñëwaat lal seen ak ginnaaw bu ñu la jàppee daañu ko diggaaleeg yow Euh, Baba Diack mi nga xam ne nag moom moo jiite équipe boobule daal àdduna ci ni nga xamante ne noonu nañu amee liggéey boobu boobule waaye nag ca biir liggéey ba gis nañu ni tamit nag jaaykat yooyu la ñu bari ca ñoom daal ci biir tànt yi la ñuy daal di fanaan euh, kàddoom soxna Ngoné Ndiaye moo ko taataan. voilà au fait dañoo ñëwoon tey def si euh, désencombrement si marché Médina donc démb si ngoon après vers 19 si lañ fi ñëw ñoom ñu sommé leen ne leen demee 8h allah bugguñu fekk kenn mu teg ci bagage ku fi am bagage na ko roñ mu bañ a fanaan fii ndax bu ñëwee ku fi dindiwul

déjà depuis sept heures et bi ñu yegsee lañ am kenn suñu benn élément bu ko njëkk a fëgg ne ko nga dindi mu tànkam lu ko alors xam nga ko ko ko wax bi ko ko wax suñ toogee ba ñëw ba 9 heures et demie mu tëj ba nekk si dëkk boo xam ne fu neex waaye nga samp lu la neex toog jaay ba sa ñaay jaay jeex nga jóg dem sa bu doon loolu la kenn du am lu la neex ci dëkk bi doo fa fekk espace sax di fekk keneen ëpp la ful la jël ko mais boo ko libre c'est parce que amuloo droit jël ko nu mu la neexee. Uh, gannaaw nag ba leen mairie bi yëkkatee ñoom jaaykat yi ñëwoon nag jaay si si gàmm gi àddunañ nag ca nañu ko dundee seen kàddu soxna Ngoone Njaay moo ko taataan. waaw ñun moom Touba lañ jóge woon. waaw fa lañ jóge woon ñu si fi waaw. ay ensemble xale ak yooyu rek bagage su xale ba bagage su jaboot yooyu daal. ñoom li ñu leen waxoon avertir nañ leen. déedéet avertir ñu de waxuñu dara. waa mairie ñoo fi ñëw. ne suba da ngeen di jóg. waaw huit heures. li ñu dañ ñoo waxoon ne gàmm gi jeex na quoi. non amul neex sax. comme ki nit ki nga xam ne yaa moom fi nga nekk loolu amul problème. kon gisoo bu fi jeexal non non non non man de aw gisuma ci problème wax dëgg yàlla. mais gis gi ren waaw macha allah tànn na ndox mi rek a xaw a yàq affaire ah. mi moom mooy loolu. tànn nañ yàlla bu wér a nit ki du lekk lu du wërsëgam. nit ki wërsëgam rek lay lekk. man fa laa ko jàpp quoi. waaw adduna moom noonu rek la. lu war a jeex day jeex bu jeexuloon ñu ngi fi. man de aw ma ci problème wax dëgg yàlla. démb daal si guddi ay boori vingt heures lañ ñëw daal ne foo wàcc yóbbaale say bagage xam nga loolu it wax

rek lu la yàlla wërsëgale rek dañ cay sante yàlla ndax liggéey moom moo baaxoo loolu parfois mu neex parfois du kii gaa mu ngi nag sant yàlla kenn ku ne mos nga ñu dem ca beneenub xibaar wax nag ci ñi nga xamante ne bii ñoo di Amnesty na mi nga xam ne seqoon nañu nag ak jotaay ñi nga xamante ne bii ñoo di garde pénitentiaire yi féetee fii eh, ci diwaan bu Kaolack ci nag nan nañu war a def nag ba eh, sàmm lépp loo xamante ne moo di nekkee nu ñi caabi féetee gannaaw ba itam nag mu gën a war a mun a yaxan tax nag ñu defal leen ci ab tàggatoo gu am solo eh, Cheikh Tidiane Diagne lañ coy àndal. waxtaan wi am Amnesty Sénégal ñoo ko seqoon ak garde pénitentiaire yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci diwaanu Kaolack ci benn hôtel de la place ci ab séminaire boo xamante ne ñu ngi fa doon waxtaanee ak ak yelleefu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kaso yi jamono ji ak itam nan la ñu war a def ba ñu nekk ci anam gu ñoŋ bu ñu sukkandikoo ci Papa Diène Diop mooy président Amnesty Sénégal gannaaw ndege mi nag moo amal janoo ak taskatu xibaar yi daal di dikkaat ci solo si. lël bi ñu am nii bi mooy suñu ñeenteelu lël ñu koy def ñu nag euh, direction administration pénitentiaire à travers le Sénégal lenn ci ak yelleefu détenu yi nga xam ne ñoom la ñuy li ñu na mais benn bi ci ci tënk rek mooy euh, cadre bi nga xam ne moom moo tënk droit ak ak yelleefu ki nga xam ne moom la caabi féete gannaaw. limu magistrat yi nag war nañu ko yokk fii ci réewum Sénégal ñeel at ñi nga xamante ne ñooy yàgg lool léeg-léeg ci kaso yi jafe-jafe yi nga xamante ne day am ci barab yu ni mel la dem ba ci anam gu ñoŋ gi nga xamante ne noonu lañu leen war a téye yii yëpp ay ponk la woon yoo xamante ci biir séminaire de formation information bi waxtaanee nañu ko fii président Amnesty Sénégal di dikkaat ci ponk yi. waaw loolu mooy solos atelier bi parce que ñii bu ñu yokkee seen xam-xam pour ñu xam ak ak yelleefu détenu bi da leen gën a permettre ñu mën ko jël en compte yaakaar naa ci loolu la nekk parce que ñun ñëpp xam nañu ne kaso neexul et le fait que déjà nga nekk kaso rek sanction la donc euh, ñu mooy def ba gën a yokk daal seen ñu gën a sàmm seen ak ak doomu aadama seen ak ak daal dina ñëw. léeg-léeg ñi nga yu ni mel yoo xamante ne bu ñu génnee du ñu am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 gannaaw ba ñu génnee ci waxtaan wi nag dinañu wéyal dox bi ba nga xamante ni yenn jafe-jafe yi léeg-léeg ñu koy dégg ci kaso yi dina wàññeeku loola ci réewum Sénégal waaye tamit ci kàddu yi Papa Diène Diop war nañoo fexe ba yokku limu kaso yi fii ci réewum Sénégal ci biir séminaire bi tamit àdduna ju ci ponk bi ni mel ci teewaayu ñi ngànk fànn bi ni mel ci réewum Sénégal ak directeuru maison d'arrêt et correction bu diwaanu Kaolack Pape Diène Diop nag moom mooy président Amnesty bu Sénégal nag àdduna ci solo gi nga xam ne eh, tàggat googu googule am na ko ci jàppale ñi nga xamante ne bii caabi dalee na faytee gannaaw ci diwaan bu kaw Kaolack eh, kàddoom Cheikh Tidiane Diagne moo ko taataan. liñ ci abordé mooy norme yi nga xam ne ay ay spécialiste ñoom ñooy ñëw di leen ko jox. Eh, leen aussi mooy que ne yu mel ni buñ koy def ñun dañ ciy profité wu pour defaale plaidoyer mooy ñaan njëkk ñaanaale demander à bi nga xam ne moom moo fi nekk mu gën a jàppale ñii nii ci seen liggéey parce que xam nañu ñëpp ne prison yi fi nekk li ci ëpp depuis époque coloniale la ñu ñaax leen pour ñu gën a yokk ay moyens pour réhabiliter prison yi wala sax tabax yu bees parce que xam nañ ñun ñëpp que ne instant yi prison yi fi nekk yëpp dañoo surpeuplé. xam yokk gi lu ngeen ci defaraat gi. ñaata prison moo nekk Sénégal mu du la mën a jox lim bi yëpp même si répertorié nañ ko waaye xam nañu que ne li ñuy wax ñi nekk ci prison surpeuplement yi ba léegi mu ngi fi. et dañuy yaakaar ne tamit comme ni ma ko waxee sànq que loolu nekkul yokk ay prison rek moom moo koy euh, saafara waaye am na réforme yu bëri yoo xam ne ci wàllu yoon la yu ñu mën a def parce que am na peine yu bëri yoo xam ne peine de prison la moom lañ jëlee ci lal boobu noonu yaakaar naa mën na wàññi lu bëri leneen aussi mën na ko wàññi mooy que ne gis ku nekk prison seen atteb dafa yéex parce que nombre de magistrats yi am Sénégal bokk xaw na wute lool ak li nga xam ne yi nombre avocats yi nekk Sénégal tamit xaw na wute lool ak nombre yi nekk international kii boo xoolee ñu bëri ñi nga xam ne ñun déglu lañ leen daaw bi ñu tasek ñoom fii nii ci waa Koutal yi Kaolack ñu yokkee limu magistrat yi ak limu avocat yi. Eh, ci wàllub yoon nag àtte googu lii sax nag la ñuy dugg wàllu naxaate nag ba jël alalub jàmbur eh, ci nag jëfandikoo li nga xam ne moo di jumtukaayu xarale yi mu doon nag mbir mu ñuy woy eh, di gis nag ci biir réew mi mu doon anam sàcc boo xam ne ñu bëri dañu cay daanu te itam nag ñu bëri ci askan wi lay faral di indi jafe-jafe ndax jël sa alal te yëgoo ca laataa nga koy xam fekk te weesu na mu bokk ca la ñuy faral di yóbbu ca kanamu yoon anam ba ñu koy àttee Ndeye Fatou Cissé lañu cay àndal. ay pexe dina ay dossier yu bari ci wetu kër gii di sonateel wala sax ci wetu ay victimes. Euh, toog ba àllarba am lu si escroquerie yoo xamante ne affaire arnaque la yoo xamante ne nit ñi dañ leen di woo ci seen téléphone yi nax leen tey daal bu dee am naa mercredi bu ma toog te plaidé woon ko bëri jëm ci naxe ba jël alalu jàmbur ci lu ñu jaarale nag ci jumtukaayu jot ak yónnee xaalis yi xew tey euh, di wéy di defi ay victimes enquête dina woote numéro téléphone boo xam ne des fois identifié ko dina xaw a jafe wala localisé dina ko xaw a jafe donte lu mën a nekk la mais li ci ëpp xaalis bi dañ koy déposé ci compte bancaire lañ koy déposé te dina am fu ñu ko retiré donc moo tax xaalis boobu di nga ci mu ngeen wax loolu ci la am man yoruma koon mais pour nga prouver loolu mais problème parce que ba nga koy jënd amul kayit am alors que bu amul kayit am wu dara pour nga firnde ne téléphone bi laa ci na ba ñuy fekkee procès yu ni mel di nan la nit ki mën a sàggane ba lii mën ko dal parce que bu la nit waaye téléphone ne la man la agent bi dama la doon woo parce que da ngeen fayoo seen facture internet wala téléphone fayuloo ko bu ngeen ko fayee dañ koy coupé léegi léegi nga tax ko loolu am problème mais bu nit ki waxaatee ne la sa patron kat wala sa borom kër nee na parce que day am ah am na seen jabar sa borom kër nee na boo ubbee ci armoire bi mu ngi fa denc xaalis jël ko nga yónnee ko ko ci numéro bi nga jàpp ne rek loolu diis na diis boo xamante ne day yomb lool nit koo xamante ne moom ab facture moo ko intéressé woon muy lijjanti ab xaalis boo war a yónni sa patron wala ak numéro boo koy yóbbu parce que dégg nga baatam parce que aussi comme ni mu wax ko defee kii wax lay jox ordre yi dafay mel ni yow dafay transmettre ay ordre alors ngay woote sax du jot kenn donc ma jàpp rek ni donc war dañ gën a bàyyi xel parce que dossier am na ñu fi am su den dossier boo xamante ay cent mille deux cent mille ay deux millions trois millions quatre millions rek des fois même nga ëpp ko ma jàpp rek am na càggante bu ci am ñu bàyyi gën ci xel. lu jëm ci peine yi nag maanaam daan yi yoon prévoir maître Adama Ndiaye di avocat à la cour ya peine bi mën na dem ba dix Euh, maître Adama Ndiaye sax nag àdduna ci xeetu nag naxaate yi nga xamante ne bii am na ba jël alalu jàmbur ak itamit nag yoon naka la koy saytoo kàddoom day faatu Cissé moo ko taataan. procureur li muy retenir ci genre escroquerie yi arnaque yi infraction yi bëri na mën naa si tibli ba ñeent bi ci njëkk te moom mooy bi gën a ëpp c'est généralement dañ koy retrouver ci tous les dossiers d'arnaque yi escroquerie à part escroquerie am na lu ñuy wax usurpation de fonction maanaam parce que nit ki woo na la ne man la agent diw donc mu ngi nubboo liggéey jàmbur donc ñu toppee ko loolu wala accès frauduleux dans un système informatique maanaam nit ki fexe ba dugg si sa téléphone yor say code bay manipuler sa téléphone comme yow mi nga xamante ne yaa ko moom loolu la ñu accès et maintien frauduleux dans un système informatique am na beneen infraction aussi boo xam ne dañ koy retraité mooy li ñuy wax association malfaite association malfaite mooy kuréel boo xamante ne ak lu diir luy gàtt gàtt gàtt kuréel boo xam ne dañ koo sas rek ngir def ay ñaawteef. ak beneen bi nga xamante ne mooy blanchiment parce que kon ni des fois xaalisu armée bi ñu ngi jënd bu moto Jakarta. di tabax ci kër voilà def ci yeneen dépense fii nag amoon na politique pénale bu amoon. à l'époque à def gars yi dañ lay condamné ba quatre ans cinq ans man naa fi sax. Mm. une condamnation à sept ans d'emprisonnement. Mm. parce que daf ko def defaat ko ñu jàpp ko ci donc mu dem ba sept ans am na fi cinq ans six ans sept ans quatre mm. ans trois ans. demoon na benn moment peine bi gën a tuuti des fois bu ñu bëggoon jàppale def ko deux ans après cour d' appel ak on peut corriger parce que certainement cour d' appel estimé que TGI les peines étaient sévères donc cour d'appel xaw réduire peine yi donc ci bëri ñu def appel cour d'appel dafa réduire peine yi donc ce qui donc TGI dañu obligé réajuster ñoom tamit wàññi daan yi entre six mois ak deux ans laa gis ñuy appliqué c'est toujours dans la même fourchette parce que les peines c'est des peines qui sont normales maintenant il faut comprendre également comme on est en matière d'escroquerie mën nañ dem ba dix ans. a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM juróom-ñeent fukk yu toftal benn ci diwaan bu kaw Kaolack nangaan xarale yee yi tax ngeen koy teewloo ca biti réew ñu dem ca beneenu ba xibaar ca dugg nag la tàmbale jàll na ca maatam ba jamono ji mu nga ca Ndar géej mu di jafe gu tar goo xam ne askan wi ñu ngi koy dund ci dex gi nga xamante ne bii moo saaraan ba dugg ci biir euh, dëkkuwaay yi askan wa nag jamono ji ci njàqare nañu daal di nekk Ndar géej ca baax Jóob la ñu fay fekk ji. débordement gi ñu nemmeeku ci dex gi ci diwaanu Kédougou jàpp Matam diwaanu Ndar géej ci ñoom it jot nañu seen wàll wi askan waa ngi jànkuwanteel ay jafe-jafe yu tar ngir rek dex gi daal di déborde lu nu tax nag ndox mi moo ngi fees dell si xàll yu mag yekk seeni yi kër ci departement bu Dagana dëkk bi ne gën a xaaraka il xare ñoo ngi jànkuwanteel ay jafe-jafe yu tar Cheikh Tidiane Ndiaye yore seen kàddu ci taxaar euh, village la bi nga xam ne c'est village frontalier avec la Mauritanie donc mu sës si dex gi voilà donc euh, li xew ci vallée bi aussi bàyyiwul gi taxaar donc muy euh, bi naa génn ci tool yi ba endommagé suñu yoon bi nga benn yoon bi nga xam ne moom moo fi am suñu fiy jaar mën di génn donc yoon boobu tey mu ngi ci xam le ne ca ndortel la doon nañu def seen kéem kàttan sax ngir gàllankoor yoonu ko ndox mi ne ay saako suuf lañu daan jël waaye mujjëntal ga lu nu mel tekk wu tus voilà donc euh, population yi d'ailleurs jéemoon nañ si sax comme ni olof di wax fag bu bala ngaa lakkale euh, ay quelques saako yi nga xam ne ñoo fi amoon def si suuf donc pour baare ko ne xam na ne ndox moom saa yoo ko baaree rek donc mu jaar fa si des donc même bu ñu xoolee de l'autre côté boo génnee gi daxaar aussi jëm si benn village bi nga xam ni ay amoo yi nga xam ñoo nekk ci wetam donc tey ndox mi coupé na leen donc déjà mi ngi envoyé tool yi di jëm ci si village bi loolu tax jafe-jafe yu tar yi ñuy ñu jànkuwanteel tiit la ñu def ñoom askan wi fekk baax ci Gilaxaar rawatina il bu xare ak tel xare ñuy sàkku ndimbal ci état bu Sénégal ngir rek mu daal di leen di wallu ci nu mu gën a gaawee ñuy woo autorité yi ñu dimbali le village de Gidaxaar ak nga xam ne ay village yi nga xam ne ñu ngi ci booru dex gi donc xare moom di un village bi nga xam ne ñu vraiment ndox mi da ko wër un partout tey bu xoolee ndox mi déjà dugg na ci terrain bi ba mu jëm ci mur école bi lii la nag nekk mbir mu métti gannaaw débordement gi ñu nemmeeku ci diwaanu ko Bakel maatam ba ci diwaanu ko Ndar Géej fleuve Sénégal bi daal di fees ba rembet ne code d'alerte bi ci diwaanu ko maatam ne moo ngi toll ci huit mètres waaye lu nu mel ci 8 virgule 74 mètres looloo tax ci diwaanu ko Matam lu toll ci junne ak fanweere ko borom kër ñoo ngi tëmb ci biir ndox mi ñu nemmee woon jëwriñ gu ñu dénk wallu ko biir réew mi daal di woon fa teg tànkam waaye nag ci diwaanu ko Dagana gi la xaaraka il xare préfet ak sous préfet bu mbaan daal di nañu nemmeeku si askan wi waaye saafara ba nëg ni askan wi amaguñu ko moo ne de nawet gu lu muy rëy rëy ci Sénégal wërngël këpp nawet amul ci Saint-Louis commune ne ci nawetu ren gi ñaari taw dong ñoo daal di ak ne débordement yu ni mel loolu yi tax na nag ñi faree ci biir dëkku maam Kumba Bang bi bu nawet amoon catastrophe du ko gën a rëy fi la ci diwaanu ko Ndar Géej ne lu leen wër lépp dex gi la ànd ak loolu seeni ay canalisation ku leen lépp ñoo ngi ko branché ci dex gi bu rembetee rek kenn du dem kenn du dellusi ci diwaanu ko Ndar Géej Saint-Louis Alfayda FM Bara Diop ñu bàyyi ko ca ndar gi ca dellusiwaat fii ci diwaan bu Kaolack nangaan kuréelu ko DER naka amaloon CRD eh, ca gouvernance bu Kaolack ci teewaayu gouverneur ndaje ba naka la ko undu mooy eh, jàppale gi nga xamante ne bii DER da koy jàppale ndaw ñi ak jigéen ñi ci ay financement yu am solo yoo xam ne bu ñu ca daal di jàppee daañu mënal seen bopp eh, CRD ba Badara Diop moo ñu fa teewaloon. ab CRD la ñu amaloon ci gouvernance bu Kaolack ndangaan bi ci teewaay nag ki nga xamante ni moo di gouverneur bu région bu Kaolack di Mouhamadou Makhtar Watt kuréel gi nag di DER doon kuréel goo xamante ni day financé ndaw ñi ak jigéen ñi ngi ko jàppale leen seen wàllum réalisation Mouhamadou Makhtar Watt lu mu ñu wax ci tënk mooy tey euh, ci kaw initiative euh, délégué général DER dañ fi tenir benn CRD social boo gisee mu tenir serde bi nag dafa ne du toog rek ci bureau muy déglu ou bien muy déglu ay rapports yi muy jot ci kaw loolu def nañ le point te rendre nañu compte que ni DER li mu dugal fii ci biir région de Kaolack lu am solo la ndaxte enveloppe buñ ko xaymaa mi ngi toll ci juróom-ñeenti ak juróom-ñeent pratiquement dix milliards bi am ne lu ko yées dix milliards rek mooy cent million sim jàll région de Kaolack li ci gën a fës mooy mbirum mbay mi ak mbirum maraîchage bi euh, jaay produits agricoles yi waaye tamit loolu bu weesoo wane nañu que ni dinañ dugal ay ressources ci filière sel ak euh, li jëm surtout également ci yenn jeunes yoo xamante ni dañu génne ci faculté de médecine nga xamante ni dinañu mën peut-être taxawal ou bien tijji seen pharmacie ñeneen ñi mën a tijji également seen cabinet dentaire. madame Aïda Mbodj moom la nag mooy délégué général bu kuréel gi di DER/FJ jàpp ne nag mission bi moom dana yaatu lool rax ci dolli taxaw nañ tem ngir ka jàppale jeunesse bi rawatina jigéen ñi. war dañu ñëwoon pour euh, wanewaat DER ndax li ñu seetlu te loolu moo indi ñu def ay antenne di def CRD yi pour ñëpp xam fi ñu jaar ak fi ñu jëm ndax loolu la ñu kilifa sant kilifa yi dañ ne bu ñu defati lenn loo xam ne nit ñi d'accorduñ ci dañu jàpp sax ne ñuy taxawal benn politique mu taxaw muy benn politique économique wala lenn lu jëm ci nguur gi ñi nga xam ne ñoo ko séq muy population yi dañ ko war a xam ba xam lan lañ leen di defal ba approprié wu ko moomal ko seen bopp mu dooree baax loolu nag moo tax tey ñu ne nañu wàcc ñu ne tam suñu wàccee li nga xam ne moom la état war a jox jëm ci population yi surtout population yi nga xam ne ñun moom lañ ñu féetale mooy xale yi ak jigéen ñi loolu ñu leeral leen ko li ci deer di def bu leeral leen ko ba mu leer jot nañoo présenté tam wax lan lañ jot a dugal ci région bi ak nan la demee ak bor yi nga xam ni moo nekk ci région bi te ñu yaakaar ci lool. ndaje bi ni mel nag salle de conférence bu gouvernance bu Kaolack nag moo ko dalaloon ci ci ab fàttali nag kuréel gi ne nag di DER mu ngi yëngatu nag ci farnu yu bari bokk la ci wàllum mbay wàllum càmm wante tamit secteur bi nga xamante ni mooy wàllum xorom si. Aïda Mbodj nag moom mooy délégué général bu DER nag ci teewaayam ci Kaolack ca CRD boobule àdduna ci njàppal gi nga xamante ne bii DER taxaw na ci ba mu yegsi si diwaan bu kaw Kaolack kàddoom Aliou Mbadara Diop moo ko taataan. yàlla dogal nag référentiel bi nga xam ne présenté nañ ko. ñëw renforcer ñu ci loolu. ndax xam nga ni bi ko président waxee ak premier ministre ministre de l'économie bi muy tontu sax ci panel bi dafa tudd DER. ni tey waroon nañoo wàcce non seulement seeni action mais seeni financement ak lépp te wàcc financement yi li muy jëriñ moo di ñun antenne yi ñu am bu dee financement yi dañ fay jaar bu fayee ko bu jotee day yomb te dinañ xam fu financement bi dugg bu dee dañ ko investir ci dara lañ ci investir dinañ xam li muy jariñ ca gox te li ñu décidé ñun deer fii mu nekk moo di en attendant ñuy wàcc finance financement yi nga xam ni comme par exemple plateforme bi nga xam ni cinq milliards la woon te Kaolack am ci enveloppe am yeneen dëkk yi am ci seen enveloppe suñu koy génnee di seet ñan ñoo ci jàll ndax ñi ci bindu yëpp mënuñu leen financer waaye bu ñuy seet ñan ñoo ci jàll bu ñu defee liste ba pare dañ parce que dëkk bu nekk xam nañ dafa bindu su ko defee loola bu ñu paree ba wan ñu ni ñii kat jar nañoo financer parce que am nañu projet wala jar nañoo financer ndax liggéeyuñ ci état bi buñ ñu ko indilee nag ñu door koy valider noonu ñu ñu ko joxe woon ndax loolu mooy jàppandal gi nga xam ni moo ëpp solo te ñu leen ci gërëm di leen waaw loolu moom dafa bokk ci doxalinu DER ñun xam nga suñu yelleef maanaam suñu kër de métier mooy financement mais ku nekk xam na ni man ba ma toogee laa leen wax ne leen ñaar ñii ñooy jiitu financement mooy formalisation mooy formalisation bi ñu ngi ciy liggéey ak di ubbi woon nañ campagne boo xam ne du mois d'août au mois de septembre APIX formalisé nañ ñu fukki junni unité ñii ay carte import export ñii ay GIE yoo xam ne wutal nañ leen yi ñu war a am waaye formation bi aussi dañ ciy liggéey ak 3FPT ak ADPME ANPEJ moom daf ñuy profiler duñu wax ni bii jeune jar naa financé profilage boobu dañ koy soxla ak yeneen formation yi nga xam ne ku mel ni USAID am nañ ñuy former dañuy former di ñu jox ñu ko defee ñu di leen kon loolu ci biir formation boobu crédit boo gis am na éducation financière boobu parce que ci biir formation ak formalisation bi la waaw autorité administrative yi ñaan nañ leen ko ndax xam nga dafa yomb dañewu état la c'est-à-dire que xaalisu état la xaalisu état ñoom ñooy représentant état c'est le gouverneur c'est le représentant permanent de monsieur le président de la république et de tous les ministres ñun dañuy jàppale ay pouvoir public donc ci lañ bokk il faut que ñoom ñoo jàppale ñu parce que li ñuy fayeeku ñoo ko moom ndax xaalisu état Mouhamadou Makhtar Wade lay wuyoo moom gouverneur bu Kaolack mu àddu nag ci eh, sedde boobule ak itamit nag doxalin bu yees bi nga xamante ne bii deer jamono ji am na ko eh, ci biir réewum Sénégal kàddoom Alioune Badara Diop moo ko taataan. ci kaw loolu yëpp gis nañu que ni filière yi mu gën a visé mooy filière agricole ak tout ce qui tourne autour waaye tamit am na yeneen perspectives yoo xamante ni offrir na ko te ñu ci gën a également mu fàtte ko wax ci nasaraan mooy xamante ni mooy diplômé faculté de médecine de pharmacie et d'odontostomatologie tamit tey DER may na leen ay opportunité ngir financer ñu mën a taxawal ay officine de pharmacie ou ibi ay cabinet dentaire loolu yëpp day wone que nii ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo téye nguur gi ci réew Sénégal dañu am benn préoccupation bu rëy mooy fexe naka la ñuy def pour trouver une réponse pertinente à la question de l'emploi ndax ti ñëpp dégg nañu li jëm ci mbiru mbëkk mi te véritablement lu leen metti loolu la moo tax ñu décidé tegaat DER ci ay doxin yu bees doxin yi nga xamante ni nag ñu ngi supposé ñëpp ñi nga xamante ni ñoom ñoo bénéficié woon ci DER financement ci lu ñu mën a fexe daal naka lañ koy def delloosee naka lañ koy mën a remboursé ndaxte ku loolu benn appel rek laa ressource état bu génnee ñi ngi ko destiné Sénégalais yi du une minorité rek mooy toog di ci bénéficier wu toujours mais base de données boobu nag bu amul day gis ki nga xamante ni day dem ci projet bi bénéficier euh, financement demaat ci beneen programme bénéficier financement alors que dafa am ñoo xamante ni ay ndaw yu toog di xaar boobu léegi moo tax base de données boobu bu ñu ko defee fépp yoo xamante bénéficier nga kii na nga xaaraatul na nga nëgëndiku ba nga xamante ni ki nga xam mësul bénéficier financement ñu mën ko jox financement te li mooy gën a rafetlu tamit mooy waxuma ko également ci nasaraan tey daf nañ ko ñi nga xamante ni ñooy autorité administrative ndaxte à l'époque comité de crédit yi Dakar rek lañ doon toog saytu joxe crédit waaye nee ko tey dañ koy décentraliser te bu ñu defee loolu ngëneel bi mooy rafet nañ njort que ni remboursement bi dina gën a gaaw te dina gën a encore jaar yoon ndaxte ñi nga xamante ñoom ñoo gën a jege population bu ñuy ñuy joxe ñoom ñoo gën a xam ñi ñuy jox ndaxte ñooñu wóolu nañ leen wóoluñ leen te ci loolu it saa yu ñuy toogloo comité de crédit dinañ ci gën associé les maires waaye ñi ngi leen di ci associé dans le sens de la proximité associer wu leen ci ngir ku nekk di ñëw di ne sama militant laa ñëw di jàppale sama militant laa bëgg a dossier. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM Euh, dugg nañ ca ñaareelu xaaju xibaar yi ñu koy teewloo fépp ci diwaan bu Sine Saalum Bawol ba jàpp waalo ñu dem ca beneen lu ba xibaar ca diwaan bu Kolda bis bi nga xam ne moom la ñu jagleel euh, xale yu jigéen ñi naka la ko undu mooy daal néewal doole gi nga xam ne dañu koy def jigéen ñi te ñu koy faral di ko dund ñuy jël góor ñi nag di ko teg seenub kaw ba lépp loo xam ne suqaliku la jigéen ñi dañu cay des gannaaw Marème jante mi nga xam ne naka mu nga bokk ca club des filles de Domasso la ñu ciy teewlu ci micro Papa Kadiali Badji jafe-jafe xale jigéen yi di rencontrer pour seen avenir ma commencé ci wàllum bàyyi école ndax xale yu jigéen yu bëri bàyyi nañ école soit de leur propre gré wala ñu teg leen ko des fois seen i ay waajur ñooy manqué moyen des fois ñoom ñooy dugg ci ay problème yoo xamante ni forcé na leen ñu bàyyi école maanaam mun nañ jël par exemple grossesse précoce benn xale bu jigéen boo xamante ne jël na grossesse euh, dafa teel a jël ëmb te ay cëram motul te motagu ko wala amagul jëkkër déjà société bi seen waa askan seen dëkkandoor ñëpp dañ la koy xoolee dañ lay joxoñ dañuy wax ci yow da ngay réservé yow ngay bañ génn seen kër wala ne ah man de bàyyi kër dañuy teg góor ci da nga fa fay fekk ni dañoo jël góor yi kaw jigéen yi alors ñun di teg góor yi ci kaw jigéen am nañ droit am ñoom lu ñuy am la parité mais teg nañ loo xamante buñ demee ba màggee noonu dina indi jafe-jafe bu mag sax pour suñu avenir. Euh, Kadijatou Diallo nag moom itamit ci club boobule la daal di bokk la mu xam ne daal moo di jigéen ñi dañoo war a nag nekk euh, ci alam gu yaxan alam goo xam ne seen dund euh, dina doon dund bu neex te lépp loo xamante ne bi suqaliku la seen loxo daa ca bokk kàddoom Pape Kadiali Badji moo ko taataan. journée bu am njëriñ ci ñun xale jigéen ñi parce que gis nañ octobre dañoo ne benn jour de buñ may xale jigéen ñi pour ñu waxtaan ci jafe-jafe yi ñuy dund seen dëkk te Kolda fi gis fois dañoo am jafe-jafe dañoo am problème bu ñuy wax teel a ëmb ñoom ña la ñuy wax bu ñu waxee teel a maye ñoom la ñuy wax à chaque fois bu ñu amee problème à chaque fois on les oriente vers Kolda donc ñun membre club de jeune fii ñu ne pourquoi pas ñu jël journée bi def ko occasion waxtaan ak suñuy moroom jigéen waxtaan ak suñuy waajur pour ñu bañ am seen jafe-jafe yu te suñu thème bi mooy bon la vision des jeunes filles de l'avenir maanaam ñun nag lañ gisee suñu bopp d'ici quelques années man personnellement man je tey vision bi mu am mooy que dans l'avenir ñu mën a dund ci benn communauté boo xamante ne duñ juger xale yi jigéen ñi ñu am liberté ñu am occasion vraiment occuper poste de responsabilité ñu mën a génn sans ñu am problème sans être harcelé san ñu am jafe-jafe wala harcèlement en tout cas dund comme peut-être góor yi ni ñu dund sans problème sans pression et tout ñun tamit loolu lañ bëgg nekk vraiment nit ko xamante ne mën na influencer mun na nekk euh, voilà dara ci réew mi xabaar yi bitim réew xibaaru biti réew yi Alioune Badara maa ngi lay dalal ziar la bu baax a baax ci àjjuma gi soxna Mariama xibaaru bitim réew yi des ki dër nag ci réew bu Mali nag wax ci nag nouvelle bi am solo bi nga xamante ni nag nemmeeku nañu ko ci transition bi ginnaaw bi nga xamante ni nag ki lee di Assimi Goïta ñu élevé ko nag au grade de général maanaam ñu jox ko li nga xamante moo di grade général moom mi nga xamante ni doon na colonel nag foofu ci réew bu Mali ci jamono yi nga xam moo jëloo li nga xam moo di gouvernement bi nekk maanaam fokkati woon nguur gi moom nag ak yeneen nataangoom yoo xamante nag ñu ngi nekk foofu la ku ci mel ni Malick Diaw ak euh, kii di Sadio Camara ak ki nga xam moo di Ismaïla Waggi ak ki leen ak di Modibo Koné ñoom ñu jamono toll nag euh, élevé nañ leen durant colonel jëlee leen fi nga xam moo di colonel yóbbu leen nga xam moo di grade bu général. xabaar yi bitim réew. ñu dem ci réew bu Nigéria nag wax ci nag mbir mu doy waar boo xamante ni nag maanaam benn accident boo xamante ni jur na ab jéye ba lu tolloon nag téeméer ak ñeent fukk doomu aadama ñàkk seen bakkan ginnaaw explosion boo xamante ni jot nañ ko nemmeeku rek benn citerne camion boo xamante ni mu ngi gàddoo li nga xamante gasoil lii nag doon na mbir moo xamante ne bu doy waar lool ginnaaw bi nga xamante jot na daanu nag foofu ci réew bu Nigéria nag askan mi ñu bëree bëri ñàkk nañ seen bakkan wante tamit lu toll juróom fukki doomu aadama nag jëlee ci ay gaañu gaañu métti yoo xamante ni nag am na ci jéye bi nga xam mu ngi am foofu lay ci réew cëre bu Nigéria juróom tolloon nag téeméer ak ñeent fukk doomu aadama ñàkk seen bakkan. xabaar yi bitim réew. jeexale xibaar bitim réew ci tiis gi nga xamante ne nemmeeku nañ ko foofu ca Hamas ginnaaw bi nga xam jot nañ fësal ni xibaar yi nag ñeel ki nga xam moo di Yahya Sinwar moom la nag doonoon njiitu Hamas foofule jot a fësal ne nag jot nañ ko assassiné nag te ñuy def lu mel lu ñeen ñu dul waaye réew bu Israël ñu jàpp ne jamono tel moom bi nga xam mu ngi am ci diggante yi réew bu Israël ak foofu ca Gaza nag mu ngi gën di wéy ñu jàpp ne nag tamit li nga xam mu wàllum ñàkkum kaaraange gi moom foo ko natt wees na ko doy waar lool ci noonu la jot nañ gis nag yenn ci manifestation yoo xam ne jot nañ ko fa amal nag ci ginnaaw bi nga xam jot nañ nemmeeku nag nii ki leen nag di njiitu Hamas di Yahya Sinwar moom mi ne jot nañ ko assassiné nag mu doon mbir moo xam bu jéggi dayo la lool mën na si jàpp ne jamono nga xam moo di ca Hamas askan mi ñoom dañoo sëngeem ginnaaw nag fitna ji nga xamante ni nemmeeku nañ ko fa. xabaar gërëm la bu baax a baax soxna Mariama fi la ñam ci xibaar bitim réew yi yàlla mi borom jàmm te ko mu jàmmal nga am jàmm yàlla ñu may jàmm juma mubarak xabaaru tàggat xibaaru tàggat yaram yi sëriñ Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Mariama Ba maa ngi lay fay te nuyu mbokk auditeurs yi ñaanal leen jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree ak euh, visite euh, Thomas euh, Bach mi nga xam ni moo jiite CIO ñëw na fii ci Ndakaaru nag ngir xool si chantier yi fi mu toll jëm ci wàccaayu Dakar 2026 des Jeux olympiques de la jeunesse Ibrahima Wade bi nga xam te ni moom mooy coordinateur yi nag wax na ci li nga xam te ni moom mooy liggéey bi. président Thomas Bach bi nga xam ne moom moo jiite comité international olympique dafa gane si Sénégal gannaaw ndaje yi nga xam ni amoon na ko ci Jeux Paris di yu mujj ak président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu pare di kuréel gi nga xam moom moo ko jiite woon fii ak euh, ay weer juróomi weer mu war a bàyyi lenge yi pour jox ko keneen te comme liggéey bi nga xam ni moo aboutir ci li ñu choisir Sénégal pour organiser Jeux olympiques la jeunesse moom moo ko dooroon moo ne dina def benn tournée tournée tàggatoo naam pour euh, ànd ak ay membres CIO ay collègues am ñi nga xam ne Afrique lañ dëkk ñu ñëw nuyu si Sénégal nuyu si président Mamadou Diagne Ndiaye nuyu si autorités yi président de la République premier ministre ak ministre des sports ak képp kilifa yi nga xam ni ak ville de Dakar ñi nga xamee ni ñoom ñoo nekk ñànk liggéey bi ak comité li nga xam ni nag lañ mën a jàpp ci nganem gi mooy li njëkk dafa ñëw ni woon dama bëgg a xool liggéey bi nga xam ni comité d'organisation mu ngi koy def fan ngeen ci toll mu jot a visité nag démb stade Iba Mar ak piscine olympique mooy ñaari bërëb yi nga xamee ni ci projet Dakar bi moom la ñu jël pour ñoŋalaat ko defaraat ko ba mu mucc ayib bañ demee ci visite itam ñu ànd ak waa Ageroute yi nga xam ñoom lañ dénk liggéey bi ñu wane ko ci wanin bu mucc ayib ñu gis ni liggéey bi door na liggéey bi tegu na ci temps te comme niñ koy faral di waxee lépp li nga xam ni dinañ ko jox comité d'organisation bi ci feewu 2025. ñu daal di waxtaanee handball championnat d'Afrique des clubs champions ci wàllu handball nag démb. jaraaf dafa ñàkkaat ci digganteem ak euh, waa Cameroun 27 28 seen digganteeg euh, équipe yi di friendship bu euh, Cameroun ma nga amee woon nag ca salle Isam ba nekk ca Maroc. championnat yi ca dend ko Europe day dooraat tey ca France Ligue 1 bi Monaco dina laale ak Lille bu juróom-benn waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom ca Espagne moom Alaves day laale ak Valladolid bu juróom-ñaari waxtu jotee ca Allemagne Borussia Dortmund day laale ak Saint-Pauli. loolu bu euh, juróom-benn waxtu jotee ba teg fanweeri simil lay doon ca euh, Arabie Saoudite Saudi Pro juróom-ñaareelu bëccëg bi Al Hilal FC mooy laaleeg Al Fayyah Al Shabab Riyad di laaleeg Al Nasr bu Sadio maane bu juróom-benn waxtu jotee Khalij di laale ak Al Ahli FC. Ligue des champions ci jigéen ñi démb Galatasaray bu Absatou Malado dafa daanu daanu bu metti ci kanam Roma juróom-benn bal ci benn lañ ko daan Magog Mariama Ba li mu gënoon a fës ci xibaaru tàggat yaram jaa li ci yéene kaay yi kaay yi. L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf. li ci yéene kaay yi ñu ànd ci ak Seydina Omar Cissé. Ah. halaan bikum ñetti doomu aadama fa ñoo faatu ñàkk seen bakkan ca mbënd ma am ca diwaanu Matam ak la ko wër allah si du quotidien moo ñu ko xamal xam nga diwaan booba dexu Sénégal ga fleuve ba ndox ma fa sàmbaraa dugg ca kër ya nangu ko askan wa nekk ci coono bu métti école ya xale ya xamatuñ fu ñu jàngee askan wa ca mbedd ma la ñuy fanaan luñ lekk sax problème la yéen kaay bi ne soldat si armée bi fa ñoo dem sax di jëlee askan wa ci yenn dëkk yoo xam ne kenn mi Gurel Samba Ndaama ak dëkk bu ñuy wax Mbooya l'observateur ne nord bu Sénégal kaawo moo fa am tooxi doona ndax dexu Sénégal ga ndox ma fa saaraar sàmbaraa dugg ca dëkk ba fees dell nangu kër yaag mbedd yaag néeg yaag noonu lu métti te garaaw dëkk yu bëri ndox ma fa koo nangu tool ya ñuy bayee ndox ma fa koo nangu moo tax ñetti xale faatu nañ ca ak lu ëpp fukk yu ca am ay gaañu-gaañu le quotidien yéen a kaay dëggal ko ne yàqu-yàqu ya fa bari xam na sax ab xale boo xam ne juróom-ñaari at moom fa lab ca ndox ma ca Kidira faatu waa OMVS artu nañ waaye amul njëriñ fi mu toll nii askan wa bés bi yéen a kaay ne waaye ànd ak mbënd ma am foofa yëpp terewul wote député yi moom fañ koy xamal de mënuñ koo toxal ah, yow seetal réewum Sénégal fi mu toll ne amuñ ay député te faaw ñu fal ay député wote budget bi xaalis bi ñu war a doxalee réew mi ak programme yu bëri yoo xam ne nguur gi fa koo xam te mënuñ koo doxal fekk assemblée bi taxawut njaga silla xam-xam màcc ci wote ci yéen a kaay bi ne monte 2006 toxaloon nañ fa ay wote député yi ci loo xam ne sax lii am maatam ak la ko wër moo a garaaw Dakar presse yéen a yi moom duñ ko toxal njiit réew bu Sénégal fa njëkk a génnee juróom-ñetti milliards ngir jàppale ko askan woowu nekk ca mbënd ma maatam mag dëkk ya ko wër taxaw leen ci wàllu dund ak dëkkuwaay ak yeneen yi ni mel léegi président Diomaye Faye yemut fa de tey ci àjjuma ji fay dem foofa ca ndox ma ca mbënd ma askanu maata ak yi ko wër taxaw leen bokk ak ñoom jafe-jafe ya massawu leen yéen kaay bi mel ni ko naan li président def nag loolu rafet la dimbale leen ci xaalis ba pare dem taxaw leen na ko wóor ne fa fa nar a fekk ay jafe-jafe jeex yuñ ko fa nar a wax la mu wax moom Amadou Ba mooy fa tontu Ousmane Sonko ba mu saf sàpp ak nguur gi fa leen a dugg attaqué leen dul dee info yéen a kaay moo ñu ko xamal yaw seetal Amadou Ba fa wax ne Sonko man xaw ma ne ab gouvernement sénégalais dañ leen wóolu fal leen ba pare ngeen nekk fi di càmbar ko yuuxu rek sénégalais fa ñoo amoon ci yen yaakaar fal leen yow Sonko ak jomaay moomu ngir ngeen saafara jafe-jafe askan wi waaye jooytu rek ah ñun sonn nañ waay ci wax ji ñu xamul dara ñooy wax ñu xam fa ñoo noppi man mii nag Amadou Ba faa waxoon ne faa leen di seetaan may leen fii ak ñaari at ba ñetti at ngeen di doxalee waaye nii ma gis ngeen def nii ci weeru njëkk yi fay firndeel ne yéen fa ngeen a tëlee dara ngeen xamul fa fa ngeen a nar a lajji ci ponk yu bëri fi mu toll ni fa ñoo stressé bopp yu ubbu waaye nag faa leen di wax ñoom Sénégal yi na jubbanti weesoo nañ fexe ba wote député yi ñu woteel ñu ñun faa bëgg nag ngeen wax seen doom yeeg seen jëkkër yeeg seen jabar yeeg dem ci jàkk yeeg jumaay fu ne ngir ñu bañ a woteel ñii wal fa fa tontu tontu na ko yemul fa de Amadou Ba kay fa jàngal Ousmane Sonko ni ñu nekkee premier ministre fa wax moom Amadou askan wi fi mu toll ni Sénégal ñëpp fa ñoo jaaxle boole ci njàqare vox populi ne Amadou Ba kay tontu yu wexat moom la dóor Ousmane Sonko fa dóor kurpeñ bu njëkk point ak yéen a mel ni ku naan ko yow Amadou Ba laay waxal yow sénégalais yi xam nga lu ñu doon xaar ci yow soo génnee bay wax nga tontu ci li la Ousmane Sonko tuumaal ci pasar pasaree xalalu réew mi wàllu budget bi bor yi xaalis ay milliards yoo xam ne fa ngeen leb séddee ko lekk ko joxe ay chiffres bon suñ partenaires yi léegi lan moo tax tontu woo ci loolu yow ngay tontu ci wàllu politique te Sonko sa tur yow Ba Moustapha Ba Abdoulaye Daouda Diallo génn na tontu na ne lañ ko tuumaal xamut donte moom it FMI weddiwaat na ko waaye yow Amadou Ba fa ngaa waroon tontu leeral ci milliardu askan woowu ñu lay tuumal yaa ko def wala defoo ko ba tax yéen a kaay bi ne yéen ñooñu ñu tuumal jóg leen na ngeen tontu loolu la sénégalais yi xaar ci yéen Moustapha Sarré moo yor carte gouvernement bi mel ni ku daan yéen a kaay bi Macky Sall moom nga wax ne fa tontu weddi lañ ko tuumaal xam nga lan moo ko waroon moom Macky mu jéggalu sénégalais yi ca Vox Populi Moustapha Sarré fa caa yokk ne Macky Sall fa bàyyi ci boo xam ne juróom-ñett fukki ndaw lañ ci rey ci ñaxtu yi fi xamoon kon kooku gàcce la sax mu taxaw di wax ci tolluwaay réewum Sénégal réew mu yàqu bon doy waar moom la fi bàyyi bés bu ñëwee Sénégal nag su yoon santaane ne fañ koy jàpp fañ koy jàpp waaye du Sonko moo koy santaane du président Diomaye ñun suñu réew mi réewum yoon la su wàccee aéroport kenn du ko attaqué kaarangam sax fañ koy saytu ba mu dem këram après nag lu yoon wax kooku mbiru yoon la suñu yoon nekkuñu ñun leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne Macky Sall moomu fa demoon réewum Amérique fa Université Columbia bëggoon faa jël kàddu ci turu réewu Afrique yi waaye soxna suñu wax Oumou Diallo bokk Pastef farandoor Ousmane Sonko la ca Amérique fa def lépp lu mu mën wax ak waa université ba wax leen kan mooy Macky Sall na leen kii yelloowut ngir mu wax ci turu Afrique ba waa université ba na Macky doo fi waxee soxna sa na leen ku war a wax daal ci turu Afrique fii te xelloo ko mooy Ousmane Sonko ba tax yoor yoor yéen a na Macky na kon commencé naa xam ay jafe-jafe l'évidence yéen a na ca diiwaanu Kaolack ndangaan woote député yii docteur Papa Moustapha Fall jiite parti ba ñuy wax gaal gi moom fa tànn Pastef ba pare xoo waa Kaolack na leen faa bëgg ngeen woteel Ousmane Sonko liste Pastef Idrissa Seck Aminata Mbengue Ndiaye moo ko waral laas yéen a na ko faay laajte man Idrissa Seck moom tekk tekkaaral noppi gi noppi ci wote député yi ca diiwaanu Thiès kenn déggu wax ca man loolu fa jaaxal li jaaxal enquête yéen mooy ne taskatu xibaari journalistes yi politiciens yi kilifa yi administratif bi ñoom ñëpp kenn respecté li ñuy wax couverture pré campagne maanaam campagne wote yi laata muy tàmbali fa xam ay bés yoo xam ne kenn Touba ña fay liggéeyee fi mu toll ni ñu ngi toog ci juróomi weer yoo xam ne fayuñ leen seen salaire aay maanaam i rajo i tv ak bés bi journal maanaam groupe i média rek ña fay liggéeyee juróomi weer a ngi nii fayuñ leen seen salaire ba te muy lu doy waar laneen lu doy waar yéeme lool mooy fa xam ab bato boo xam ne fa suux ca port bu Ndakaaru digg bëccëg l'observateur moo ñu ko xamal léegi ko yéen a kaay ne bato boobu nag justice Sénégal fa koo tegoon loxo ca février 2023 ma teg loxo libération fekk fa xibaar yuy wax naan bourse étudiants yi fañ koo wàññeek seen fay bourse yi fa tardeek waaye kilifa yi ñu dénk wàllu bourse fañ ko weddi ba set na loolu daraa wàcc amut li xam nag te ñaaw lool mooy fa xam ab benn soxna boo xam ne fañ koo bojj rey ko ba mu faatu ñàkk ba kanam allah yëf yaa nga amee ca ngor waaye réew mi yéen a kaay fa ñoo xamal ne kenn ku ñu njort ne moo ko rey wala bokk na ca ña rey soxna sax teg nañ ko loxo ca diwaanu sali waa ma ne lii tax rey ci maa tey jeex Sénégal faa leen koy waxaat te yàgg naa leen koy wax mooy képp ku rey nit ci maa tey fañ laa war a rey loolu de mooy xàtteeb yàlla ak lislaam mbokk yi li ñoo fi rusee woon ci yi ji di Bass Mbaye ci machine bi ñoo ngi leen di jaajëfal yéen ñi doon teewlu xibaar yi kaddu gi doon bàyyi ko si studio Aline Momar Lo ci immeuble Cheikh Imam Assane Cissé eh, fii ci dëkk bu sell bii di Medina Baye ñu ñaan rek yàlla mi borom jàmm ku mu may jàmm nga am jàmm yàlla may jàmm mbokk cant ak ngërëm ñeel na leen woy leen di ànd ak programme yu am solo yu Alfayda FM juma mubarak jërë ngeen